kii suñu waay la naa mii boolewul dalaa ki wax ñu bàyyi lépp ñëw ci moom fii Paris ku ne xam na ni Pape Diouf daf fii le 23 bii te album bu bees tàq la bëggee indi fii inauguré ko fii biir France fii la koy njëkk a wayee vingt trois décembre la album Pape Diouf bi surprise bi fii la koy wayee ne nag foog mu jàkkaarloog naa mu baax mii nga xam ni da ko pare na ci bis bi mu jënd taab le 23 decembre la album Pape Diouf bi surprise bi fii la koy waaye ne nag foog mu jàkkaarloog naa mu baax mii nga xam ni da ko pare na ci bis bi mu jënd table un million et quelque ñu naan ko taabul deux mille euros waaw dinañ jàpp kenn du ko jeex mhm. xam nga kii damay am mbégte damay dëgg la parce que tey li mu doon fii ci France mhm. c'est le mérite parce que dafa yàgg depuis mhm. deux mille huit la ñu yàlla boole nag ak moom fii ci France mu boot affaire bi xàddiwul bàyyi la ñu yàlla boole nag ak moom fii ci France mu boot affaire bi xàddiwul bàyyi bi tey ji pare bi delloo jukkal la tudd. Mm-hmm. delloo jukkal parce que jox nañu delloo ko jukkal. ndeysaan Sénégalais yëpp xam ni dañ ko doon ñaar Sénégalais ñoo nekk fii ci ci Europe moom mi seen président xàdduwul deful dara. Mm-hmm. kon tey Pape Diouf bu duggee. fii ci France daal ne président des Sénégalais. de l'extérieur dama koy delloo njukkal def ko pare caanam wàcc na. ndeysaan moom it mu am loolu jël benn table ne non seulement dañ may delloo njukkal mais damay tourné jàpp ci. loolu de toi frère. non mais donc rendez-vous le 23